Gen, es dafa provinces ah so ma eh, tegal ko tegal ko mbuuroo kan kon biif ñu lekkal kon biif bi ba mu jeex ñëw nag teg li nga xam ne nag ruyam waaye lu tax def ruy bu bi ah dama lay xam kon beef moo so yo, this is semester nga ah. Wow, semester ah, jaara semester jaara hello my brother Yo, ya, you are live on camping talent? thank you oh sorry so moom uh, mu ngi liggéey uh, fi nga xam ne mooy West Coast Radio ah ki mooy alaaji alaaji nakam alaaji yow yaa nar a lekkal nu naka la ne waxee ruy si joola monaay monaay naka lañ ko de waxee si soose mono mhm. ah. gis ngeen gaa dem fa def meew di gis ngeen ologee ologee eh? soo buggee mun ngaa yokka mi ne waaw du bugg ñu yokka parce que right now maa ngi live bapana nisa farsamba bana nam xam <laughs> nga ñun wala day ah. ñoy e fi ere e itame ah. le legi tamé daf ci dé ba ñu ruy fondé wu ah. mono wu yoyu nonu xam nga dedet ke sir anti bu ñuy téral ni num tudda anti ndey mejiba anti ndey jiba ah definitely baax na definitely ñëw nañ këram mu tegal ñu yëpp ñu namun ko mbada jamono ji ñuy ay semester len semester jaara right Wow.